Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yu wóote leer ci bile jamono. Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yu wóote leer ci bile jamono. fii la mburu bi tàngee fii lay doxale dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër leer ci bile jamono amagatu SeneInfo point net SeneInfo international jërë ngeen jëf dalee nax jàmm ci seen yor-yoru SeneInfo ma di ko amal ak sama naataango bi di Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf mu ñëw ak yenn ci ay yaatala Bour Sine ma bàyyi la nga nuyoo ñu daal di tàmbali waaleykum salaam a Asel maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu itam mbokki internautes yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel kon euh, saa su ne suñu différentes plateformes yi muy seneinfo point net euh, ak seneinfo international YouTube bi li euh, nga xam ne mooy suñu réseaux sociaux yi ñoom ñëpp daal ñu leen di jaajëfal kon ci topp boobu ñu ngi topp di am mbégte baax kon di leen ci yoor yooru seneinfo. bu si njëkk nag mooy actualité ñuy traité deuxième partie bi nag nekk actualité politique ñu dalal si ab gan si loolu dañuy tàmbali première partie bi rek fi ñu koy tàmbalee mooy procès bi nga xam ne Ousmane Sonko dina ko amal tey ak kii di Mame Mbaye Niang ñu daal di dikk ak yéen rek si marché bi amoon démb marché bi rappeurs yi ak ñëpp gis nañ fa ay kilifa yu bëri ñu ñëwoon di marché kii di nit dof pour ñu libéré ko. ñëwaat ba tey si Ken Boy mi nga xam ne génn na àdduna si altine bi ñu jugee moom nag démb ministère de sports dafa demoon seeti ko loolu yëpp dinañu wax yenn si yaatal bi ñu daal di ñëw ba tey si Khalifa Sall moom tamit démb remplacé nañ ko par Habib si si conférence de leaders bu Yewwi Askan Wi. moom moo ko daan présider léegi nag remplacé nañ ko. ñu ngi wax yéen rek si Macky Sall mi nga xam ne mu nekkoon président Union africaine moom nag boobu la nguuru daan na di jeex ni ki démb ñu jeexalee rek ak réewum Turquie mi nga xamante ne ni euh, si séisme bi fa amoon ba tey ñu ngi continuer di gis euh, di compter ay morts bilan bi di gën di yëkkatiku. Euh, bu ñu jógee foofu rek ñu dikk ak ñeen seen deuxième partie bi nga xam ne Bourse indi na ci dalal invité bi di Omar Diarra Cissé nekk juriste spécialiste en droit des collectivités territoriales ci loolu Bourse xam naa dañuy commencé waxtaan bi rek ak procès Ousmane Sonko bi nga xam ne mu ngi koy amal tey ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko nag démb def na ab déclaration daal di xamal euh, partisan wam yi daal di xamal sénégalais yi sax ne dina wuy di tey ba fi mu toll nii sax euh, d'après les informations mu si yoon bi dem di dem si boobule procès moom nag euh, démb si déclaration bi woote na sénégalais yi ak ay partisan wam di ñu ñëw teewlu boobule procès ndaxte procès public la Euh, waaw soxna Assa comme ni ko waxee euh, procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang euh, bés bu tey bii ñu war ko amal foofule ca tribunal bu Dakar dem def na ab sortie comme ni koy faral di defee rek euh, waxaat nag ne woote ca kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militant nga mag ay partisan ne na leen daal euh, nañu teew ci boobule procès nga xam ne kon procès public la war a amee bésub tey bi fi mu nekk ni sax comme ni nga ko waxee mu ngi woon noonu ci yoon ba jubali foofu nga xam ne kon euh, moom mooy euh, tribunal bu Dakar lañ euh, ci mën a nemmeeku rek kon moom mooy woote bi nga xam ne kon amal na ko ba suba démb ndax moom daal dafa jàpp ne dañoo bëgg a jaaree ci biir procès ngir taqal suuf li nga xam ne moom mooy candidature am mm-hmm. ci élection présidentielle bu 2024 ci loolu sax euh, mu ngi xam ne ne bépp organe daal boo xam ne wala bépp juge kon boo xam ne euh, bëgg na kaa ko na wala jéem na kaa ci biir procès rek mu ne leen jàpp ne boobu lay juge ennemi la ak ennemi it ñi nga xam ne ñu ngi porté projet bi nga xam ne kon euh, moom am na ko kon ne bépp juge daal boo xam ne fas fas na ko rek condamné euh, ci biir parce que ñun jàpp ne kooku seen euh, ennemi la euh, la ko des waa xam nañ ne kon dina dina dina wuy ji fi nekk dina gis ne ni dispositif sécuritaire bi déjà commencé nañ ko jël démb tey it boo demee foofule mhm. ca cité kër li ko wër mu nga fees dell commencé na am ay nit ñi nga xam ne pour militants comme ni ñu defee rek xëyal nañu ñoom utali foofa oto yi gis nañ ne ñii di force de l'ordre yi encore bàyyi nañ convoi bi ngir kon euh, sécurité bi jëm fa nga xam ne kon moom mooy euh, tribunal bu Dakar du xam naa fi ak ay kon fi ak ay waxtu rek peut-être wala ay mhm. xam li nga xam ne kon moom moo nar a tukkee euh, ci boobule procès soxna Seck. waaw comme ni ko rek bu ñu xaarandi boobule procès xam naa dinañ si ñëwaat si kanam tuuti su jeexee rek ñu daal di si ak internet seen info si loolu dañuy jàll si marche bi nga xamante ne nii amaloon nañ ko démb euh, mooy euh, marche pour libération wu nit dof mi nga xamante ne nii moom amaloon na ay vidéo yu mu doon génn yi doon ci wax euh, ay kàddu yoo xamante ne nii téye woon nañ boobu ba tey nag moom nit dof ñu ngi ko téye ba tey loolu moo tax démb ñu amaloon ab marche marche moom nag gis nañ fa ñu bëri même Ousmane Sonko sax démb moom tamit teewoon na fa ñu gis si ku mel ni ay ay mbokku rappeuram ñu bëri ñëwoon nañu mais marché boobu bañ ko jaglelee kii di nit dox ba pare am na ñeneen ñu si doon tudd lu si mel ni les détenus politiques daal lañ doon wax ba suñu nattaango boobu journaliste la di Matar Cissé moom tamit ñu ko si doon tudd ngir ñu libéré ko pour si. Euh, waaw soxna Assane comme ni ko waxee ab euh, marché la boo xam ne démb gis nañ fa ay rappeurs ay activistes. wante itam ñun politique euh, ngeen wuy euh, comme ni société euh, civile bi mu nag muy nag marche boo xam ne kon dañ ko jagleel ñi ñuy woowee ay détenus politique bi euh, nga xam ne rek benn na ca fës te sax ñu gisoon ni nataalam muy rapport bi ni dof gannaaw bi nga xamee ne nag euh, jàppoon nañ ko fi bi mu génnoon nag def ab vidéo boo xam ne kon euh, da ci doon daal saaga ak artu nga xam ne ñooy yi muy ñi jiite réew mi wala loolu nag comme ni ko waxee gisoon nañ ñu teew fa Ousmane Sonko bi comme ni nga ko waxee bokkoon na ci ñu gën a fës kon ña fa teew démb ñoom nag ñuy sàkku ñi nga xam ne daal teg nañ leen loxo ñu ñu libéré leen jur yi euh, lu ca mën di am rek euh, du weesu euh, xam loolu it fan lay ana ana fan lay mujjee incha allah. waaw buur ñu daal di continuer ba tey rek ah, kii di Ken Ndoye mi nga xam ni génn na àdduna si altine bi. moom nag feebaram dafa yàggoon torop ndaxte dëdd na lu tolloo ko fukki at ba ñaari at yu mujjee ñu gis média yi ñu bëri seeti woon nañ ko si jot a def ak moom ay émission jot a waxtaan ak moom mais kii di kenn lenn rek la doon wax moom nee na ñaanul ñu jàppale ko mais li ko Sénégal amel da doon naan suñ ko ko fayee rek man na see faju te boo xoolee du si domaine am kese dañ koy gis si làmb ji ak yeneen ak yeneen da ci am ay dañuy gis ay icônes yoo xamante ne ni nekk nañu si réew mi bu ñu demee ba doon mag wala ñu dem ba feebar ñu war leen jàppale bu gis kenn toog di ñaan ndimbal buur mhm. waaw comme ni ko waxee rek mbirum euh, kenn looy muy athlète boobu nga xam ne comme ni nga ko waxee rek yàgg na teewal Sénégal ci ay euh, tribune africaine ak international sax euh, compétition yoo xam ne taxawaay bu am solo la fa doon am jot na sax nekk li nga xam ne moom mooy médaille d'or ci Afrique ñaar yoon am na ci ay raaya amit ay raaya yoo xam ne am na ko ci niveau international participer ci ay compétition internationale yoo xam ne jël na fa yoo euh, solo la euh, bi ñu génn àdduna nag ni ko gisee euh, autorités yi muy ministre des na fa ñu ne joxe fa génn na wala itam joxe ne pour joxe li nga xam ne moom mooy yu primo kii di kenn doy loolu sax mu ne yàgg na ko laajte ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité kon pour ñu jox ko day euh, comme ni nga waxee day nekk mbir moo xam ne lu déplorable la day ndax bu fekkoon fayoon nañ ko euh, koppar ne ko mu prix yooyu mu doon laajte amaat na bu ñu ko ko fayoon euh, am mu faju woon peut-être ba wër ba ñu génn àdduna doon na lu dogal la dañu nangu mais amaat na bu doon fay nañ ko loolu à temps bu ñu leen koy laaj à temps mën na am bu doon fay nañ ko peut-être mën na ko jëfandikoo peut-être wóor ak yu yu ni mel loolu daal day wane ne comme autorité daa waroon war nañ war nañ xoolaat loolu parce que ñoo xam ne comme dañuy représenté Sénégal à l'extérieur comme ni ñu defal ni ñu def ak ñooy Coupe d'Afrique yi ni ñu def ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Bissouka ak waa Lion Chan yi au même titre la kenn day représenté li nga xam ne moom mooy Sénégal kon ñun ñëpp ay Lion lañ ay Lion lañ Lion la doon na représenté li nga xam ne moom mooy yàgg na représenté Sénégal ci sur le plan international feebar tëral ko ba mu génn àdduna yaakaar naa kon autorité rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ ciy artuwaat yu mel nii bu amatee euh, surtout koo xam ne sax li ñu ko amee la doon laaj war nañ sax mën a jàppale te nekkul ne loo xam ne alal la mais boo xam ne alal alalam la doon laaj mm-hmm. li gënoon mooy ñu taxawu ko jox ko li nga xam ne loolu lay laaj loolu bu ko xëyoon sax ñu dolli ko leneen ngir faj ko euh, ne serait-ce que le fait que moom représenté Sénégal rek euh, jaroon na ñu am kon benn taxawaay bu am solo ci li nga xam ne moom mooy kaawam lu ñuy revenir encore une fois di ñaan yàlla yërëm ko defaree ko àjjana incha allah. buur comme ni nga ko waxee rek loolu moom nekk na loo xam ne dafa déplorable ndaxte ñu ngi xam ne sax ni moom si feebaram demoon na ministère des sports doon laajte boobule euh, alal bi nga xam ne nguur gi amal na ko ko mais jëlee euh, foo woon dara kon dama jàpp ne. Euh, ndimbal bi ñu indi ba mu décédé lu ñu indi foofu dafa trop tard ndax dafa gaañu dafa ñàkk bakkanam ba pare ñu doog a ñëw di jël euh, alal ju toll moom di ko jox euh, famille bu ñu jógee si loolu xam naa ba tey dañuy ñëw si Khalifa mi nga xam ne remplacé nañ ko si bu ñu jógee si ñëw si Khalifa Sall mi nga xam ne moo nekkoon président wu conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi moom nag ni ki démb xam ne nañu ne remplacé nañ ko ak kii di Habib Sy waaw comme ni nga sama euh, am na démb lu ko jiitu nag barki démb conférence des leaders bi dañoo amal ab assemblée générale ci loolu nag euh, daanaka ñu dañu fa teewoon yëpp dañoo d'accord ci ne nga xam ne moom mooy Habib Sy euh, ngir mu uutu Khalifa Sall ko ci bopp conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi wante nag Khalifa Sall ñu préciser ne kon bu ñu sukkandikoo sax ci ay projet yoo xam ne ñooy wax li moom moo décidé nga tuddee kon si li xam ne moom mooy euh, bopp lim euh, bi conférence des leaders euh, bu Yewwi Askan Wi la ko waral nag mu fi nekk nii moom candidat la ci élection présidentielle bi am na ay programme yoo xam ne da koy doxal fi mu nekk sax mu ci ay tournée yoo xam ne mu ngi def peut-être gis na ne ak agenda am ak yooyu peut ko ngir daal. pour mën a kon coordination peut bu baax ak yu demee noonu. ba tax kon daal mu retiré aussi ba mu ci retiré wu nag comme ko waxee bi ñu toogee waxtaan gis nañ ne kon euh, Habib si daal euh, moo nekkoon koo xam ne nii waroon a remplacer kii di Khalifa Sall ba ñu tànn ko kon à l'unanimité ñëpp ne euh, moom la it tànn ko kon mu doon li nga xam ne moom mooy. njiital euh, conférence des leaders bi askan wi mais nag ñu comme ñu xam ne rek kon amul benn xëccoo wala ay xiiroo wala ngaayoo kon am ba li ni mel euh, gannaaw bi Khalifa Sall retiré ko ñu def seen euh, ci la ñu tabb kon boobule di Habib Sy mu war koo jiite fi mu nekk jërëjëf Gour si leeral bi ba tey rek ñu ñëw si président Macky Sall mi nga xam ne moom moo nekkoon njiitu Union africaine moom nag ginnaaw bu mu faloo lu tolloo fa benn at nguuram daal na di jeex. waaw nguuram jeex na démb 15 février gannaaw bi nga xam ne nag def na accord comme mu nga waxee ci bopp Union africaine nga xam ne kon benn présidence tournante la maanaam jiitu réew yi nga xam ne ñoo bokkee ci Union africaine nekkee wi ci at bu jot da xam ne kon moom moo koy euh, doon moom njiitu réew Macky Sall nag gannaaw bi fa euh, defee nga xam ne moom mooy at amit lu fa def lu am solo démb daal kon euh, la Euh, kon euh, démb la mandat jeex na ci bopp kon li nga xam moom mooy kon présidence bu union africaine li nga xam ne nag moom mooy mandat ñu mun ko li nga xam ne def na ko peut-être ci mandat yaakaar mën nañu ko tënk si ñett ba ñeenti poñ bokk na si négociation yi nga xam ne euh, def na ko. pour ñu libérer stocku euh, yi nga xam ne mu ngeen ci Ukraine gannaaw bi nga xam ne sax euh, xeex bi mu ngi amoon ba xeex baa ngi am ba ba sax euh, wàllum lekk pepp surtout côté bele nga xam ne dañ koy consommé lu bëri xawoon manqué jógoon na dem dox ci ay jéego ak nga xam ne moom mooy njiital Russie di Vladimir Poutine ba ci mujjantal nga li nga xam ne moom mooy céréales yi mujjee woon ni ba libéré mu dox bokk na ci itam Euh, laaj na itam li nga xam ne eh, moom mooy investissement massif maanaam li nga xam ne daal moom mooy ci wàllum agriculture ñu gën koo jëmmal ci li nga xam ne kon moom mooy Union africaine ba li nga xam ne kon moom mooy souveraineté alimentaire maanaam bay dundee maanaam ñu ñu moom suñu bopp ci wàllum lekk loolu it mën a am lu nekk loolu def na ci amal na ci boo xam ne am na solo lool wante it ba léegi euh, ay jéego waxtaanee ngir Union africaine mën a ci li nga xam ne moom mooy G20 sommet G20 muy sommet bi nga xam ne moom moo ëmb ñi nga xam ne ñooy vingt puissance vingt pays yi nga xam ne ñoom la ñu tànn ñoom ñu jàpp ne ñoom ñoo ëpp doole ci àdduna bi mu ne nag Union africaine it war nañ koo yaatal mu bokk ci ñu yaatal boobu sommet Union africaine bokk si wante itam place su Union africaine euh, mu am benn place permanente ci conseil de sécurité des nations unies xam nga tey euh, nations unies dafa nekk nii euh, Afrique am amagu fa comme que siège permanent loolu bokk na ci li nga xam ne njiitu réew mi mu koy njiitu Macky Sall njiital Union africaine daan na ko doxee ci li nga xam ne moom mooy mandat wante it mandat Macky boobu ci bopp. Union africaine am euh, yeneen événement peut-être ko marqué lu si mel ni mbirum euh, soldat ivoirien 49 soldat yooyu nga xam ne ñu ngi leen euh, arrêté woon fële ca Mali loolu mu jóg dox ci jéego en tant que président bu Union africaine ba ci mujjantal sax gis nañ ne mu jéem yooyu les soldats yaakaar naa ne daal euh, jaaram kon ci bopp Union africaine euh, mën nañ ne am na solo euh, gannaaw dossier yooyu nga xam ne kii la xam ne dox na ko ngir défendre Afrique Afrique gën a am daal taxawaay bu baax ci li nga xam ne moom mooy àdduna soxna Astel. waaw buur jërëjëf xam naa dañ koy jeexale rek ak askanu turc ak Syrie mi nga xamante ne ni benn séisme amoon na ci sëriñ boobu nag lu ëpp 40 000 morts daan di fa am 40 000 personnes ak lu ko ëpp daan nañ di fa ñàkk seen bakkan sans compter ñi nga xamante ne nii ay blessé lañu si loolu nag ñu gis ne ONU mu ngi daal di woote ndimbal ci askan woowu ba ba képp ku leen mën a dimbali rek mu yóbbu ko fa ndaxte nekk na loo xam ne soxla nañ ko torop waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee Turquie ak Syrie gannaaw bi fa suuf si yëngu suuf si amee nag euh, boobaa léegi ëpp na ay bés muy mbir mu méttee métti fi mu nekk nii nag dafa faatu comme ni nga ko waxee ñu ngi naan mot na quarante mille personnes maanaam quarante mille personnes yoo xam ne lool nañ ñàkk seen bakkan ci yooyu ne jiyee kon xam nag loolu bu amee. Euh, dafa fekkit euh, tabax yu bëri dafa daanu kër yu bëri dafa daanu fi mu nekk nii euh, comme gis ay nit yoo xam ne faatu nañ ñu ngay wéy di suul seen ay néew loolu nag tax ba organisation des nations unies ka ko jiite di Antonio Guterres jóg nag euh, laaj réewu àdduna lu gën a baral ndimbal yi nga xam ne kon ñu ngi koy yóbbu foofule ca euh, Turquie Turquie nga xam a sonn moom sax nee na boobu la appel dinañ ko amal ngir réewu Syrie wante nag Turquie ñi nga xam ne ñoo ci gën a sonn nee fi mu nekkee daal ndimbal la war nañ koo baral kon nag ngi ko réewu àdduna ngir ñu balal gën a baral boobule ndimbal ndax nee sax soxla nañ lu ci quatre cent millions de dollars pour daal mën a subvenir besoin yi nga xam ne besoin a la maanaam euh, tabaxaatal leen ay abri fu ñu nekkaale fu ñu nekk gum mm-hmm. euh, pour l'instant ñi nga xam ne euh, am na ci ay gaañu gaañu wala ay yenn feebar yi ñu mën leen a faj lekk gi tam nekk na loo xam ne soxla nañ ko xam nga tam dafa tombeel période seddaay bu métti foofu ñu war di tenir bàjji ak yéen mel loolu lépp daal tax na ba euh, kooku di secrétaire général des nations unies mu ngi woo réewu àdduna ngir baral dimbal yi dimbal nga xam ne Euh, ñu ngi koy yóbbu foofule eh, ca euh, Turquie bi nga xam ne sax moom mooy ambassadrice bu euh, Turquie nekk fii Sénégal moom rafetlu na bu baax a baax bi nga xam ne Afrique am na ko solidarité bi nga xam a fi nekk nii Afrique am na ko jëmale ci Syrie bokk na ci suñu réewum Sénégal ñu koy yóbbu ay soldats wala itam yëkkati. kéem kattanam ci ay koppar mu toll ci six cent millions mu jagleel ko réew Turquie lu ci mën a am it daal dañ leen di yàlla gën leen taxaw ndax daal jamono nekk métti lool nekk nañ ci ay jamono yu métti yàlla yàlla taxaw leen te li ñu mel yàlla mu amati ci àdduna soxna Asel. Amina Bourou dina jaajëfal bu baax a baax si yaatal gi xam naa première partie wu yor-yoru Sene Info foofu lañ koy daggee ak yéen rek. ñu daal di continuer ak deuxième partie bi ma bàyyi buur mu daal di dalal gan gi di Omar Diarra Cissé nekk juriste spécialiste en droit des collectivités territoriales euh, ngeen fas yéene waxtaan nag mbirum actualité politique si loolu nag xam naa dama leen di jox di daje ba suba incha allah jërë ngeen jëf. Restez toujours informés sur Seneinfo. xibaar yu wóor te leer ci bile jëm. waaw soxna Asel ñu ngi lay jaajëfal kon ñu fas yéene dugg rek comme ni ko waxee ci deuxième partie yor ñu ci dalal nag euh, Oumar Diarra Cissé moom euh, juriste la nekk spécialiste en droit des collectivités territoriales ñu fas yéene waxtaan ak moom nag si ñetti poñ euh, meeting Ousmane Sonko ba am ca Mbàkke fële te tere woon ko wante itam ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. ak it ci coow li nga xam ne mu ngi am ci diggante euh, réel suñuy réseau des élus locaux bi nga xam ne waaye Yewwi taxawal nañ ko ak it euh, AMS di association des maires euh, du Sénégal balaa may sori rek kon ko mu nuyante internet seen waaw ñu ngi leen di fay di kontaan lool si encore une fois de plus parce que j'ai l'habitude de dire que je suis pas un nouveau dans dans la boîte. Mm-hmm. parce que je suis très ravi. à chaque fois bu ngeen ma tendre donc une opportunité pour def des échanges maa ngi nuyu ñëpp fekk aussi di nuyu moom internet waaw xanaa rek xam naa fi may tàmbalee waxtaan bi rek euh, Omar muy ay euh, jàngat yoo xam ne da nga ko amal ci meeting Ousmane Sonko bi nga xam ne euh, terewoon nañ ko fële ca Mbacke parce que ba coow ca mujjee am sax ñoo xam ne teg nañ leen teg nañ leen ca loxo fi muy waxee nii ana jàngat yooyu lan la waaw man peut être balaa ngay àddu si cas boobu noonu. Euh, il a peut être de faire des rappels principaux. Mm-hmm. parce que on n'est pas censé de savoir que dans la constitution du Sénégal depuis l'avènement de l'alternance bu Abdoulaye Wade euh, je crois que notamment en 2002 il nous a soumis un régime déclaratif mm-hmm. c'est-à-dire que bu bu ñu def ay manifestation wala du temps yu meeting yu dañ naan ci par rapport ak ko tëggee l'utilisation doit demeurer la règle parce que parce que loolu la disposition constitutionnelle bi kii àddu aussi tam l' exception moom moo kii l' interdiction autant pour moi moom moo war a nekk l' exception loolu ko constitution bi mooy encadré léegi boo xoolee par rapport ak li xew keroog Mbàkke mhm. c'est-à-dire que lorsque parce que ñun ay délégalistes lañ on n'est pas trop changé li euh, focalisé aussi l'aspect purement politique. Okay. Moi j'ai vu euh, l'arrêté que le, le préfet de Mbacké a donc a ressorti mm-hmm. et que man li may faral di wax sama euh, promotionnaire des fois dañuy am benn genre désolation bu ñu bu ñu gisee genre pratique yooyu parce a invoqué une disposition boo xam ne il n'est jamais parce que loolu lay wax benn disposition boo xam ne existé wul pour ne serait seul motif bi interdire ay ay manifestation ci man loolu warul prévaloir dans un état de droit. il a il a eu donc en œuvre benn disposition c' la loi de 73. c' est c' est relatif defe code pénal. alors que cette loi donc a été remplacée par une disposition nouvelle qui est censée abroger la loi ancienne. léegi boo ñëwee interdit manifestation wala kii autorisa kii autorisation wala fi doomu aadama di di di daje. Mhm. tu dois l'interdire sur la base d'une disposition en vigueur d'une disposition boo xam ne dafa nekk ci biir texte yi. alors que man je pense que aussi beneen jàngat bu mu ci maanaam c'est vrai que les légalistes c'est-à-dire que euh, avocat Ousmane Sonko qui ont introduit un recours un référé ne serait que pour mu am benn effet suspensif sur la décision. Mhm. moi je mënuñoo dem sax au au delà ñu ñu ñu annulé carrément décision parce que li ñuy faral di wax dañu am position boo xam ne buñ ko bu autorité bi invoqué boo xam ne amul base légale ci man jàngat bi ma amul base légale. Mm-hmm. loolu amul base légale ci quatre conditions la mënul am base légale moom mooy mënut a exister moom mooy nekkagul nekkagul unité en vigueur wala. nekkoon na naa jigéen wala léegi nekkatu ko mhm. wala dafa illégal defe naa ci quatre conditions yooyu la te boo xoolee ci quatre conditions yi mën na ci tirer benn pour wax ne moom bi mu bi mu teg comme raison boobu nekku nekkatul sur l'arsenal juridique sénégalais boobu loolu la aussi tam beneen jàngatam bi bi ma ci am moom mooy nañuy respecter les droits de l'homme nañuy respecter aussi ak xam yelleefu citoyen sénégalais te aussi tam beneen point bi mooy jëg daan daan la ci moom mooy bu ñu demee ba confronté genre situation yooyu noonu l'autorité administrative lorsqu'il est soumis benn texte boo xam ne euh, peut-être en droit def euh, marché wala nangam il doit le faire sur de deux conditions mm-hmm. lorsqu'il est moom mu ñëw il est avoir d'éléments nécessaires pour assurer donc la sécurité des personnes et des loolu benn condition beneen condition bu demee ba gis ni l'ordre public est menacé sur la base de ces deux conditions mën ko mën na ko arrêté mais nag vu la vu les deux a nullement vu mu invoqué ñaar yooyu mu dugg mu indi comme motif un texte boo xam ne réseaux existent là. kon daal maa ngi dégg kon préfet bi sukkandiku da koo tegoon foo xam ne sax. benn disposition boo xam ne sax dafa dafa dafa nekk si suñu arsenal juridique surtout l'arsenal juridique pénal nekku ci. boo xoolee loolu dañ koy dese c'est-à-dire que amul fu ñu teg tànkam pour interdire loolu. Hmm. parce que ñun tam dañuy wax dañuy àddu sur des pratiques politiques politiciennes on doit faire des analyses sûrement dans le volet juridique. te moi je pense que bu ñu toog wax sànq ci ñaari condition rek la ko mën a teg bu dem ba gis ni moom peut-être aliment yi mu yor wala tamit menace d'ordre public peut-être ñaari condition yooyu noonu moom moo fi nekkul sur la base de la moom parce que ñaar moo ko ko may tam aussi mais interdire benn événement te alors que amoon ñaari kii yooyu c'est-à-dire day menacer carrément les libertés fondamentaux alors ñun war nañoo dépasser foofu parce que aujourd'hui il faut je pense que il faut donner un contenu à la démocratie après di régresser dix ans c'est regrettable quoi. Euh, ñu ngi doon euh, euh, jaar si Euh, procès Ousmane Sonko Adji Sarr it am na ay taxaw seetlu ak i jàngat euh, yoo ci def ci jamono yoo xam ne nag euh, renvoyé nañ ko en chambre criminelle di xaar li nga xam ne moom mooy datu procès fii ak yegg foofu ana jàngat boobu nga xam ne kon moom nga ci amal. waaw man jàngat ci am ci dossier boobu parce que mën naa ne officiellement c'est la première fois que je me prononce sur ce dossier. Hmm. et que li ma ci wax rek moom mooy ñun suñu système sénégalais ñu ngi ko tëggee. dañu am benn système bi ñu naan c'est un système euh, euh, pas accusatoire mais dafa nekk benn système boo xam ne l'enquête est au cœur de la procédure ah bu ñu dañoo def dañoo àddu système boo xam ne c'est pris à la lumière donc du système français qui un système inquisitoire boo xoolee du début de la procédure dès les enquêtes préliminaires aboutissant en à l'amendement donc du, du dossier mm-hmm. jusqu'au juge instructeur boo xoolee moi je pense que dañoo nekk yenn saa ay incohérence incohérence du seul fait que des ci biir enquête policière bi tu vois nettement que la victime dafa dem ba benn instant ba nekk si benn ci benn boo xam ne mm-hmm. tu ne pas que ni dafa nekk ci benn ligne conducteur aussi tamit li naan enquête daawuñu affaire criminelle boo jëlee benn juge boo xam ne ñun naa ko dañ koy woo le juge policier qui a qui a les pleins pouvoirs qui doit amener tous les éléments nécessaires ne serait-ce que pour parvenir donc à la déclaration de la vérité wala éclairer les les les sur la lanterne du du dossier yow waroo mën a jëlee benn information ci benn fànn rek exclure leen parce que la procédure tu as nettement noté que amoon na ay audio amoon na ay déclaration amoon na ay témoin loolu yëpp peut-être c'est des éléments nécessaires mais loolu mooy des éléments boo xam ne dafa concerner ñun juristes yi les des réglages que nous sommes mais la nga médecin ok et que loolu bu dugg ci biir procédure bi au lieu que mu charger mais nekk si benn dynamique moo xam ne dafa décharger le prévenu pour moi personnellement dans ce dossier c'est pas sérieux qu'on est dans un état de droit pour aboutir euh, au niveau des chambres criminelles c'est pas sérieux. dans les enquêtes préliminaires. aussi même mu mu mu mu sax bu fekkee nekkul sax dans la dynamique d'annuler le dossier euh, euh, dans les enquêtes préliminaires mais au niveau de l'instruction pendant tout ce temps yow tu as les éléments yow aussi tu as les les les audios que. que vous pouvez peut-être mettre à la disposition donc, des, euh, des organismes censés donc, peut-être de, vérifier la véracité. loolu benn la aussi tamit tu as des déclarations tu as un médical. Mm-hmm. et que tous ces éléments donc tendent peut-être à décharger donc le prévenu. yow en tant que juge yow da nga war a sañ ci benn benn dynamique boo xam ne. doon nekk si benn dynamique politique politicienne et comme ñun légaliste comme nous sommes vraiment dans ce dossier ñun loolu lañ sentir je ne suis pas en train de peut-être de faire un procès moral mais juridiquement parlant ce dossier ne pouvait pas aboutir au, au niveau des des des, des chambres criminelles. kon nag moom avec avec boobu moom laa si am. bu nekkee ni comme yóbbu nañ ko chambre criminelle tey peut-être lan nga yaakaar ne mooy doon ussi bu ragal naa ko si bu ñu ko yóbbee peut-être chambre criminelle bu fekkee amul ay doléances politique politicienne mm-hmm. on on peut peut-être que on peut avoir la présomption que euh, bu ñu yóbbee ay allégations politique politicienne que peut-être le droit sera dit parce que ñun loolu la ñuy xaar Sénégalais loolu la ñuy xaar observateur itam loolu la ñuy xaar. si si da nga le droit n'est pas dit dans cette affaire. non peut-être man. du ma ne le le droit ne sera pas dit li nga daal euh, gars yi jaar nañ ko ci droit fi nga doon la procédure il de a des incohérences dans la procédure il y a des non la procédure dafa am ay affaires yoo xam ne def lu def ma maa tey dans la procédure il a la violation des libertés dans la procédure il y a dafa bëri. kon da nga def da ngeen déggee kon complot bi nga xam ne Sonko non c'est que c'est que nekkul une question de complot parce que autant que le prévenu a des droits autant que le prévenu a des droits moi je pense que que ce soit mu nekk l'accusé wala la victime dañu war a respecter leurs droits et que violation de ces droits dans la procédure nullement limité les légaliser le parquet wala mu nekk le juge wala ñu nekk ci dynamique boobu voilà et que ñun on a le cœur euh, éclairé en tant qu'universitaire. De loin, on est très observateur par, rapport à ces dossiers. Maintenant, la suite nous, dira par rapport peut-être euh, au jugement provenant. Après le avocat Ousmane def ci euh, chambre euh, d'accusation ba ba moom reporté li nga xam ne moom mooy verdict mu ci war a a joxe am na gis ne peut-être ñoom dañ ko def ngir pour que waa temps yu demee noonu si avocat lu métier avocat c'est ay ay kii la ay moyen la ay pexe la ils sont ils sont dans leurs droits ñoom lépp lu ñu mën a def peut-être pour peut-être que les clients soient tirés d'affaire ils sont dans leur rôle ñoom dinañ ko def parce que loolu mooy métier avocat tam aussi mm-hmm. waaw loolu la te loolu moom je pense que ils sont dans leur droit peut-être de l'autre côté euh, ce que peut-être la partie civile est censée apporter comme élément de de réponse par rapport a à cette saisine-là, ñoom dinañ mm-hmm. je pense que on est dans une bataille juridique et que c'est assez normal aussi. Euh, toujours concernant euh, procès boobu suspension maître El Hadj Diouf bi d'abord moo ko gisee ak est-ce que mën na am njeexital li nga xam ne moom mooy procédure bi. Ah, mais bien si la suspension est définitive définitive moi je pense qu'il ne pourra nullement peut-être se s'ériger en tant qu'avocat dans dans le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. ñàkk teewoon dina si am conséquence. ah non mën na si bañ a am euh, kii conséquence il est vrai que Adji Sarr sera je je crois que ñaari moom ñaari avocat la bu fekkee même teewul sax il aura nécessairement nekk kan boo xam ne moom dina ko dina ko présenter dina ko représenter. Mm-hmm. waaw loolu moom gisuma ci benn benn incident. suspension bi en tant que tel noo ko noo ko gisee le fait que ñu suspendre El Hadji. non parce que man en tant que euh, kii observateur. Euh, sur le dossier interne, visiblement les raisons auxquelles euh, il a eu donc à bénéficier d'une suspension. Et c'est très tout simplement que comme Sénégal ñu ngi ko découvrir noonu laa ko découvrir mais li ñu koy ñaanal moom mooy mu génn ci affaire boobu yéen ñu ko ñu koy suspendre. Mm-hmm. voilà loolu la ñu ngi jaar boobu jaara euh, ci ba léegi am na solo yooyu la réer peut-être beneen troisième dernier bi nga xam ne it war nañ ko waxtaanee mooy coono am. Euh, bi nga xam ne taxawal nañu REES ak léegi muy réseau des jeunes locaux du Sénégal nga xam ne ñu def Pastef Ousmane Sonko euh, di ci meeru Ziguinchor moom lañu tab président euh, boobu nag fekkoon déjà AMS existe na association des maires du Sénégal loolu nag jur coow ba sax njiitu réew mi dégg nañu àddu woon ci naan maanaam peut ñaari asso ñaari association yooyu peut-être yoo xam ne dañu bàyyi mooy Sénégal am yow ana ba ñu jàngatee nga def ci mbir moom bu déwén dañu mën suñu dëkk ñun Sénégal lañ nekk te ay ndaw lañ dëgg la a une dose peut-être euh, de connaissance mais am na yoo xam ne ça ne doit pas être dit lorsqu'on est président de la République parce que trois individus parce que moom toujours j'ai l'habitude de dire que constitution bi moom mooy garantir les droits et constitution bi moom moo may ah trois individus mën na formé pour nekk benn association AMS moo fi yàgg nekk mais autant que AMS a des droits peut-être pour former association autant que autant que les maires qui étaient dans l'AMS mën nañ génn dem formé wu beneen association parce que problème moom mooy ils n'ont pas la vision sur le modèle de décentralisation loolu la ils sont dans le droit mais ci tax ci Sénégal amul lu ñu wax ne benn association des maires Sénégal moo war a am kon fa lañ ko biir dogal de nee la sur la base de la constitution moo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp liberté de réunion liberté de s'ériger en une association loolu constitution moo ñu ko may waxuma la sax AMS wala réel yeneen groupe de maire mën nañ formé euh, nekkaat même même même même kii au même pied d'égalité que c'est que man loolu gisuma ci gisuma ci gisuma ci gisuma ci kii loo xam ne day day day te la été question de la journée de la décentralisation dafa wax benn affaire boo xam ne moi je pense que en tant que président la République tu ne dire ça en tant que président de tous les Sénégalais dama war a de dire de mots parce que dafa ne carrément lors des élections de 2000 je crois les élections législatives dernières. Mhm. dafa ne euh, il y a des d'autres façons que euh, les services donc les exécutifs étaient dans les dispositions pendant le mois de janvier de de faire le transfert des au niveau du maire et que vu que cette date avait considéré donc la date des élections il ne voyait nullement le fait le besoin de faire ces transferts Moi, je, je, le, je, le, dis carrément, il ne dire ça parce que droit boobu euh, bénéfice yooyu noonu loi bi moo ko te loi boobu noonu da koo mettre au bénéfice des communes de tous les Sénégal que ce soit yow nga nekk benn commune noo feen tu incarnes l'opposition tu diriges une mairie tu dois autant bénéficier donc de ces subventions là que de maire qui est du pouvoir parce que c'est l'article 320 donc du code des collectivités locales qui organise donc la répartition de ces fonds. Alors que nullement le président de la République doit se mouvoir donc de l'ingénuité ne serait-ce que fonds yooyu fonds yooyu waaw moom moo ko pour mu jox ko mais loolu warul au vu de tous les Sénégalais du monde ngay wax ces genres de déclaration lu kenn ko def mm-hmm. kon daal bu déggee ñoom ñaari association yi war nañu nekk euh, te benn coono am daal le problème moom mooy man parce que il faut avoir une analyse objective man je me démarque toujours des analyses subjectives man la situation peut-être que n'ont pas la même vision sur le modèle de décentralisation raison pour laquelle les maires qui encadrent donc les réels se sont mis en rade par à man man ak jàngal ma place yi. est-ce que nekkul bis yaa a tey donc la politique ay xëccoo moo tax euh, ba kii féetee a la quoi. en tout cas. les intérêts, peut-être il y a des intérêts liés donc à leur gouvernance. Les intérêts les leur privilégiés. Les intérêts donc qui épousent donc les intérêts donc de ceux qui les ont élus. Mais aussi comme les intérêts donc qui épousent donc la population sénégalaise, mais pas des intérêts politiques politiciens qui doivent être au-dessus. Non, non, la Suisse. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être séparées de la décentralisation. Non, moi, dañu am ay intérêt politique divergence ce ne sera pas un spécialiste bu ci bu ci man loolu dama préserver de ça pour nga préserver bu peut bi nga xam ne elle est déjà existante euh, ànd ak ñoom liggéey euh, permet seen yoon existante bien que moom moo njëkk exister le réel mais ça ne veut pas dire que c'est la seule association qui doit exister officiellement. puisque l'AMS peut-être président man dana gis ne des objectif premier du parce que y compris l'AMS que réel ils doivent s'ériger en vitrine donc de solution donc des politiques publiques locales taxaw pour jox ay observation donc sur donc la politique axée sur la décentralisation mais pas du xëccoo de part d'autre mais pour revenir à tes comme le REEN ñoom ñaar dañu war a taxaw donc en tant que solution donc aux politiques publiques locales autant que beneen regroupement de maires am droit tamit former un groupe de maires taxaw pour jëriñ fi askan wi loolu kese la dëgg solo euh, xanaa rek euh, dama lay laaj euh, lan ngay tëjee rek kon waaw man bu may lancé benn appel nekk que vu contexte social contexte politique bi ñu nekk euh, aujourd'hui il faut dire que le Sénégal prime sur tout intérêt privé mmh. voilà c' est vrai que instant yi tension am na tension politique am na tension sociale mais ñun ñëpp ñoo war booloo doon doon benn xam ne tamit Sénégal mooy njëkk Sénégal mooy mujj mmh. waaw man man appel boobu laa doon ñu ngi lay jaajëfal bu baax Omar Diarra yaakaar naa jàngat yi am na solo di fàttali kon juriste nga nekk spécialiste en droit des collectivités territoriales. yaakaar naa yi mu fi wax ni moo am na solo lool te it euh, ñi doon ñi doon déglu dina am peut-être si luñ si jàngee di la jaajëfal bu baax di jaajëfal fi mbokk internet yi nga xam ne kon ñu ngi bàyyi xel ci yor yoru seen info jox dégg daje ëllëg. Restez toujours informés sur seen info xibaar yu wóor te leer ci bile jamono

ci biir jamono